<laughs> daam booy friend bu baax la laal. am nga droit eh, ngi noonu daam daam daam daam seen. waaw am na droit daam daa mel ni daa njaxlaf de daam seen mi yàqamti na de. gars yi de ñoo lay nuyu. waaw ziar naa leen. Ah. gis nga ko kon naaj gis naa ko. waaw naaj dama bëgg mu nekk ci forme bu baax. waaw. Hmm. kon kon Nganda daanu daan liggéey bu may daan ak athlète. tey daam seen waaye doo bàyyi laa doon daan daan war incha bu ne xeel suñu borom waaw day daan daan incha allah waaw xeex wala bëre lan moo ko ci mën a daal waaw ñu dañu ñëpp bëri si moom man dama bu fekkee bu ñëwee ne day xeer ay naxaate man su may naxaate rek waaw ñun si bëri ñu dem maag moom incha allah bu ne xeel suñu borom non dañu rënkum daje bëri incha allah bu ne xeel suñu borom te nee na dafa am lu mu wax nee na bu ñu bëree ñu xam léegi ma ngi ñaan lu mu bëgg rek nañ ko nañ ci dem instant moom dafa jàpp ne bu ñu bëree cinq mille instant ñun dañu sonn hmm. wala mu jàpp ne ñu dañoo hmm. na ni du masse fu mu ñu ñu entraînement def ñàbb waxoon naa ko keroog ma ne ko a ma ne ko boo préparé combat ñu bëri ngay àndal di dem géej di dem entraînement nga la quinze personnes nga baaxoon nga jékki-jékki ñu ne la ñaari nit nga àndal nga jékki-jékki ñu ne la kenn nga àndal nga jékki ñu ne la kenn day génn mu ne ko bu ñu duggee foofu di nga xam incha allah yàlla na ci yàlla boog jàmm ak salaam. Hmm. Hmm. bu arbitre bi ne prix nga ko tegal. non dañuy dañuy dañuy bëre incha allah bu neexee dañuy bëre ji. Hmm. dañuy bëre ji. waaw dañuy bëri bu baax incha allah bu neexal suñu borom. dañuy bëri léegi mbooloo mu bari ñoo ko topp ay mbokkam ay xaritam ay njagañaale mu wane ni. bis bi actuellement ni sax promoteur bi nee na ma jënd na six blocs. Hmm. te ku ne xam na ne ku leen tëgg. Hmm. mobilisation lay xaar. Hmm. te mobilisation bi ñu daan gis ci Pape Mbaye est ce que mën nañ koo gisati ci moom. non tey la gën a yokk ndax man sama xale ko ñëpp dañoo màgg <laughs> tey la gën a yokk boo ñëwee sama koñ moo raw jàmm moo raw gunaas ndax ma ma fi baax ay booy tuutànk booy màgg def jar. ma li ma waxoon laax nekkul waxuma pour waxu Dame Sène ba ma ne cëpp ñëw Sénégal fii damaa ñëw damaa ñëw wax ma laaj ay adversaire yu dis man si ñu dijjee ñu laa soxla ma ne man ñaari adversaire ñaari combat laa muy ban ñaari combat mooy ma duy arène nationale ba mu fees ma sumeeku même ku sibarewul Pambaay xam ne kii dafa liggéey te loolu maa si nekk jiguma si ba léegi. te bu ngeen jàppante wuuree ci bëre ñu bari xam ne Pape Mbaye fa mu nekkoon ma nga waaw moom ndaanaan la dafa mën a bëre. champion la. ndaanaan la. dañuy wër si bëre incha allah bu neexee moom ndaanaan nangu naa ko ndaanaan champion la nangu naa ko sa ba mu bañ bëre ba pare. Hmm. Hmm. nan lay bëre. loolu loolu. loolu jàng ko man xam naa champion nga non non ñun xool ñun xam nañu champion daal. Ah. l'essentiel mooy daam xam nañu daam seen lépp lay bëree champion kenn dàq bëri la mu nangul nañ ko lépp dama ni lépp lay bëree daam daam lépp lay bëree dañ ko seraan dañ ko seraan simple seraan ko nit frappe champion nekk ndaan nangu nañ ko ndaanana nangu nañ ko champion mais yàlla ci yàlla bis inshallah bañ egg say jàmm buñ bëree pare après inshallah dañ xam inshallah bu neexal a ñëw mu ne tàqalikook yow ndax juru làmb ja tamit noonu lay def day teel a ñëw stade teel a bëreeg yow daan la dem yoonam wane ni ñi ci kaw ñu ngi. waaw xam nga wax moom wax moom neex na. Ah, waaw xam nga wax na mais ku xam ne nii man Dame Sène léegi nee naa la tukki moom a booleeg moom coronavirus moom a booleeg moom tukki a booleeg ba may ñëw di wax loolu ba may ñëw di wax loolu li may kaw ñii ku daan saaxajo war ko daan guy ma ñëw daan la kon ñu teguñu suñu bëri si Dame Sène tey bu ñu nekkoon Sénégal duñu bëri Dame Sène xam nga loolu sa yow liñ def si lamb def ko si lamb 19 combat lañu bëri dañoo bëri bëri ay waaw waaw yàlla ñu dafa jàmm rek waaw incha allah ñun woon ñëpp ñëpp ñëw incha ah. ñun suñu mbokk a ñu gën a bëgg combat bi géejoo hmm. yëpp lañu woo hmm. ay see yëpp lañu woo waa géejoo ñëpp na gars yi ñoo jàpp jënañu béy yu bëri ñu war a national duy ko incha allah bu neexal suñu borom waaw gis mu ngi noonu. moom Pape mbay diggante ak ki nga xamante ne mooy Dame Sène gis nga mu ngi noonu ma ngay nuyu. mu ngi noonu di dugg de mu ngi noonu di dugg mu ngi noonu di dugg bi de Bantamba TV moom Pape Mbaye ginnaaw lay duggee. dem na la ilaha illallah sey jàmbaar doomu le roi des arènes sa adversaire dugg na de waaw dugg na maa ngi koy fekk si biir léegi incha allah hmm. journée le 6 juillet Ibulaay jël la boole la ceeg say moroom ku mel ni sa grand frère Dame Sène di ci bëre man hmm. ma wàccaay nga war fas yéene waaj combat waaw wàccaay comme ñu daan waajee rek mais bii day gën a déterminé wu parce que boo xoolee comme ni nga wax rek man ak Dame Sène sama grand ñu bokk si xam nga day ñëw rek comme ni ñu daan defee indi mobilisation xam nga waa parcelle génn waa Tëngéej génn sama frère Petit Laay aussi da siy bëre ñëw buñ simee ko xam nga man ak ay daam yëpp ñooy bokk fu ñu contact rek lépp buñ ñëwee tamit supporter ñooy bokk fu ñu toog rek ma bëri daan jox ko mu bëri daan incha allah hmm. gis naa ko dugg mais macha allah mu ci état de forme bu mucc ayib ah, nekk ci état parce que pour ñu bëre combat jàmbaar waaw parce loolu laay wër ci làmb quoi combat yu metti hmm. combat jànq. Hmm. Hmm. seen combat dañ ci séntu ñu bare bare bare ci wàllu xeex ci wàllu bëre ndax ku ne xam na ni jona bi ndaanaan la ci bëre ndaanaan la ci xeex est-ce que yow pare nga pour xeex ak moom sa diggante ak moom. waaw man ak armée moom xam nga làmb la rek comme làmb xale te man moom mooy li may wax rek sama côté dinaa délivrer li nit ñi bëgg muy xeex muy bëre waaw man ci sama côté laa mën a wax man li amateur di ma dinaa ko joxe quoi fu laak fayda allah. waa waaw xeex bëri loolu kay amul lu ma si réglé sax combat bi kay amul conseil amul calcul amul dara boo ñëwee ma naan def li ma naa def rek incha allah boo xoolee sa combat bi weesu lu mel noonu dal na la ba sa cimmikaay gis naa ne ñu baree baree bari donte am nga ndam bégguñu ci ni nga bëree ndax jàpp nañ ni combat bi danga ko da respecté wul adversaire bi wala da nga foowee bi wala yu mel noonu bi nga demee lan lañ la jox non boobu conseil yee bari woon rek xam nga ku nekk di la jox conseil donc ma ñëw bëri liñ ma conseil après gisuma loolu ma indi sama sama sama xalaatu bopp bi ma indee sama xalaatu bopp solo combat bi jeex mais bii di ñëw moom ak yii di ñëw yëpp incha allahu rabbi xam naa ne maay bëreel sama bopp. Hmm. ku xam na ni bis bi tamit Pape Mbaye borom mbooloo la lan lañ mën a xaar ci yow ndax promoteur bi nag Iboulaye production yaakaar naa ni su ma juumul bi mooy troisième fois mu tëgg. waaw bi mooy troisième fois muy tëgg kon li tax muy téye sama licence ak gis na sama njëriñ. Hmm. xam nga mais mooy li may wax rek man moom saa yi may ñëw rek bii si day gën a bari boole yi gën a bari waaw ay bus laa jëlee tëngeej muy ñëw. te ñëpp dinañ ñëw. waaw ah, ñëpp dinañ ñëw incha allah ñu fa doon des sax dinañ ñëw bii. incha allah waaw léegi léegi rek incha allah jaajëf. ay waay féexal sab xol ah original neexal bu te am na gu. original pur jus de fruits. Sénégal café kan gi yegsi naa. salaam tout le monde ñun équipe nationale kickboxing bu Sénégal ñu ngi leen di jox rendez-vous le 5 le 6 le 7 juillet fii ci place de souvenir festival Eric Favre sport santé international